mbokki internet Yatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu dikk ak yéen te la gën a fees dañ koy daal di door ki nga xamante ni bii nag moo di ca soow moom nag ca soow ñu gën ko ràññee nag ca télévision bële di TFM ginnaaw nag ab feebar ba xamante ni bii nag dana wax ne daf ko tëral nag lu yàgg ba léegi moom bi di Kouthia Show nag ni ki tey jële ki ñuy wax Jimbori nag daal di yëkkati nag ay kàddu daal di koy jëmale nag ci ki nga xamante ne bii nag artiste comédien moom kii di Kouthia Show mi ngi koy daal di xamal ne di ko ñaanal ndimbal nag ngir ñu daal di koy jàppale bu baax a baax nag jëmale ko nag ci aw wér-gi-yaramam moom nag ca kàddu yooyu ma ngi daal di xam xamle nag ne ba tey sax kii di Kouthia Show moom yëkkatiwut sax ay kàddu ngir lu mel noonu waaye nag lu war ku ne xam na ko looloo tax nag moom mi mu daal di te ay kàddu nag ngir daal di koy ñaanal ndimbal nag ngir nag ñu jàppale ko ci wér-gu-yaramam googee ndaxte kat dafa jàpp ne dafa wér-gu-yaram ga dafa sooxe lool lool ba jéggi dayoo kon artiste boobu bële nag di Kouthia daal ñu koy sàkku la ndimbal ngir nag ab tawat boo xamante ne bii daal moo ko daal di daaneel Abdou Mbow nag di am naqar la di koy jëmale ci kaw ki nga xamante ne bii moo di premier ministre ak président de la république. indonation ba am foofee ca maatam ma ngay daal di xam le nag ne jëkkul jaaduwut nag ca na taxawin ba nga xamante ne bi am na ko sax waaye mbetteel nag dëgg la ci am sax sur nag ministre de l'intérieur bi nga xamante ni dem na Fuuta ba génn fa nag te demul foofee ca maatam loole daal ma ngi koy naqarlu bu baax a baax a baax moom Abdoul Mbow député assemblée national bile loolee la daal di xamle ni ki tey jile foofee ca seen wepp la nga daal di yëkkatee ay kàddoom may xamle nag ne daal ñii ñu jox réew mi daal ci caxat caxatee ko ak saax saaxee ko ak def lu leen neex rek nag ci leen ko bëgg a doxalee te loolee nag du fi amee loolee nag ma ngi leen di jox rendez-vous 17 novembre bi nga xamante ne moom la ñu daal di mal ñu daal di jàpp nag askan wi ñu ci bëri dañ leen daal di bàyyi ti faaxan